salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa safar salaatu kon nga gis ni ñi gëmoon la doon waxal c'est minal mu'minin ñooñu way gëm lañ ba noppi ñoo ñooñu la yàlla jënd seen bakkan ak seeni alal nga xam ni yoon woowu la Sëñ Tuubaa yeesalaat muy yoonu jaayante nga xam ni yàlla moom moom say bakkan moom moom say alal waaye da ngay gis tey dongo bi xëñ na waxuma sax benn niveau bi mu am ko waaye da ngay ñëw ci ki nga ni mooy sa wasi wasila jaayanteeg moom waaye fi nga toog ngay xàccaat bala ngaa jóg ndax ki nga jaayante danga war a mel ni am néew ci moom ca état booba bi ngeen xisee jaayante ba noppi nga wax ko li nga bëgg mu wax la ni la am na fa wax la charte yi koy maye tàllal loxoom ngeen jaayante ca waxtu woowu da war a bàyyee sa bopp waratoo def lu dul lum la digal foofa waroo faa jóg sax te néew la jógal. waaye li ngay defaat dara si ni ko sëñ bi ñaanal ma ma dellu barab sangam kon génnaat nga ci la nga waxoon di nga gis ni yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni am na te ñoo ngi koy passé sous silence te it dana dem ba xëy na yegg ci benn dimension boo xam ni xëy na la muy juri ëllëg xamee sul xamee lan la moo tax finalement da ngay gis la sëñ Babacar Diakhaté waxoon say say jamonoom nag laa wax de man xaw ma bu dellusiwaatoon nu muy tëggee woy wi sax nee na ku wax nga ni yegg na. waaye ku jëf nga ni tey mu xalsata alku tey nag moom képp ku wax sax nga xam ni kii moom euh, dana alku euh, moom xalsat na alku te sëñ ba jaxate ba mu waxee lii yàgg na lool ku wax nga ni yegg na waaye ku jëf nga ni tey lay xalsata alku tey nag ñun moom waxuma sax euh, jëf ji waaye ku ci wax sax nga xam ni kii xamul sax li xew xamul kuy sëriñ bi xamul li sëñ bi woote xamul li sëñ bi bëgg ci moom loola kon jafeñ-jafeñ la boo xam ne am na ci yoon wi loolu li mu tegtale tey ci par exemple weeru safar wi nga xam ne dafay teru ni rek da nga daan gis ni euh, xëy na yàlla man xaw ma lu mu ci namm waaye da nga daan gis ni dana dem a dem a dem ba nin daan farale sonn ci waajal màggal gi safar yi ñu daan def léeg-léeg sax duñ ko sonne ci bis bi bis bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa digle nga xam ni danañ ci sonn coono yoo xam ni duñ ko sonn sax ci jëmmi bis bi nga xam ne moom la sëñ bi waxoon ni képp koo xam ne sama mbég sa mbég la ak ku aju ci man nag ma ci sant la yàlla fu mu la fekk yooyu yëpp da ngay gis ni kon ay initiative privée lay doon yoo xam ni nit ki dafa dem ba booyal am xelam lu ko lu lu mu xelam jàpp rek mu dem ci may fàttali benn discours bu sëñ ab sëñ Saliou Mbacké mi defoon euh, su ma juumut mille la woon wala un waaye 2000 laa gën a jàpp sax dafay waxtaan ni nañuy jëfe na ñuy jëfe ndigal te bàyyi topp njort lu sam xel daj rek nga ne ca nee na aw yoon lu dëng-dëng ci dëkk la jëm rawatina yoonu jub yi di siraatal mustaqim waaye am xel mu jóg moom mën naa yéeg ci kawi garab mën naa xuus ci biir géej waaye ab tànk bu jóg te bëgg dem ci yoon rek lay jaar te yoon wa lu mu dëng-dëng ci dëkk la jëm rawatina yoonu jub di siraatal mustaqim na ñuy jëfe ndigal waaye xam nga lu mu ca teg na ñuy jëfe ndigal daal ne afarayta man istaxda ilaahu waa laaye ji lan la joteeg ñun te ci wote màggal la ko wax ñan la yàlla di waxal ci laaye ji ñi nga xam ni seen bànneex bi lañ def muy seen yàlla moom la ñuy jaamu li yàllay def mooy daf leen njëkk a sànq ci xam ba pare ba noppi sakk seenub dégg muur seenub gis ba noppi kaste seenub xol ana ku leen mën a gindee ci ginnaaw yàlla loolu la loolu la wax te aaye bii la sëñ yu jëfandikoo ci woote màggal bi kon dafay mel ni taalibe yi war nañoo jéem a xeñtuwaat bu baax kon ñi àndoon ak sëñ Touba naka lañ àndee woon ak moom xam ni dafa am lu leen taxoon a jóg muy wut ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla day du caagin ni ku jóg am ko loolu dafay lu am solo loo xam ne kon mat naa bàyyi xel beneen bi nga xam ni it moo ci des mooy xëñ na euh, ku tuuti laa te ndaw lool euh, kilifa yi moom suñu ma wax ci ñoom waaye xam naa ni ak cëriñ it tamit. dem naa dema dem fi ne ba mi ngi bëgg a nuru euh, daanaka ak nguur walla lu ko xaw a jege te sëriñ bi moom mësta nekk ci lool mësu koo jege yi tamit ndax mësta wuutale doomi boppam ak keneen ku ñëw ci moom di sàkku yàlla sëñ laat am na lu mu ci wax fii ñëpp dégg ko nee na sëriñ bi li mu ñu daan digal li mu daan digal taalibe yi rek la ñu digal nee na man 1920 ba léegi maa ngi ci dëkk bii fu dara ne mbaa ab janefe taxani naa fa mbaa ma ànd fa ak saa morom taxani nga xam ni ñu daan sant taalibe yi lañ leen daan sant te tey gis nañ ni problème am na foofu jafe-jafe bu rëy am na ci ndax tey mën na maa jël man sama doom ak si yëkkati jox sama kilifa ne ko jox naa la ko mu jël sama doom yóbbu ca tool yi moom liggéeyloo ko jël doomam moom dem jàngale ko wala bokk li ñuy wut lépp wala li mu bëggal sama doom la bëggalul doom li mu bëggal doomam la bëggul sama doom wala xëj na sama doom la yéene moom ñaq yu mu liggéey te yéene wu ko doomam man am naa fi jafe-jafe foofu am naa fi damaa xamul loolu xëj na nees koy teqalee waaye gis naa ni la muy tànnal doomam ak la muy tànnal sama doom man du bokk te sëñ bi moom mës ta settee lool ndax li mu yéene woon doomi boppam moom la yéene woon euh, taalibe yi amu ci woon ak settee ndax mbirum yàlla la te ku nekk xaj na ci loola it jafeñ-jafeñ la tey jii dem naa dema demit ba wax dëgg da ngay gis ay taalibe yoo xam ni danañ bëgg lu baax lool di góorgóorlu kem seen kàttan foo leen fekk ñu sàmm waaye da ngay gis ni euh, euh, léeg-léeg gëdd gi ñu leen waroon a jox donte ñoom séentuwuñ ko sax xaaruñu ko man lañ leen ko bañ a jox man lañ leen ko bañ a euh, jagleel itam nga xam ni tey bu xew-xew yi di faral di am bu amoon rek bokki taalibe yi ñëw. daal di jël kaamil bi jàng fa nangami kaamil ñii nekk ci durusub xasida yi ñii di yëkkati ñii ni demee da nga gis ni mën nga faa seet lu gàtt gàtt ñaar yëf ñoom ñooñu mbërum làmb mi ñëw ak ka nekk ca musique ba fa nu ko yóbbu ak teraanga dañ ko jox ak àq dañ ko jox duñ ko jox ñi di jàng alxuraan ji ak xasida yi loolu jafe-jafe la te nit ñi ñoo ngi ubbi seen i gët di xool am na loo xam ne moom am tànk mën naa banku waaye wax dëgg yàlla am xel moom euh, mëne su ko téye te loolu jafe-jafe la boo xam ne si bu doy waar la te dañ koy gis mu leer lañu ni kii mbërum làmb la wala leneen mën naa yegg foo xam ne si yow mi nga xam ne lu baax rek la tax a jóg loolu doo cee yegg kon loolu yi tamit jafe-jafe la boo xam ne warees na koo corriger ndax sëñ Touba lu mu am bëgg yàlla ak yonent bi rek moo ko may lu mu mën a am ñun tey jii luñ mën a am bëgg gi bëgg sëñ Touba bëgg yàlla ak yonent bi rek moo moo moo na koy may. ak ak ak nongu gi nii sàmmoo euh, nongu euh, topp ci moom ak ak ak ak topp ndi ak topp ndigalam ba tax na kon ñun loola dafa doon loo xam ni waxtu wu nekk moom la ñu war di yëkkati moom la ñu war a teg ci kanam kaw kon muy lu am solo loo xam ni it mat naa bàyyi xel te ñu xam nit ni observateurs yi léegi dara nëbbootul nit ñëpp a ngi ubbi seen i gët di xool toujours dañuy peese say wax ak say jëf ni ko euh, Cheikh Abdoulaye waxee woon membre gouvernement bi rek nit. waxi démbam ak jëfi tayam boo ko boolee muy benn mënoo leen ràññat leen nit a ngoog kon loolu dafay lu am solo képp koo xam ne yëkkatiku nga ba teg tàllu ci ku toll ni Cheikh Bamba yaakaar naa ni sa gànjar sa alal sa trésor euh, mooy lu baax mooy ay teggin ni mu ko waxee mooy alxuraan mooy euh, hadis yonent bi mooy mooy ay teggin rek kon loolu yaakaar naa ni lu tamit lu ci am solo la xëñ na duma ma sori ci foofu mën naa ci yem Euh, beneen bi ci des tamit ci problème mu principe léeg-léeg danañ faral di dégg ay baat yu ñuy faral di wax yoo xam ni da ngay gis ni lii mën naa jëm foo xam ni euh, bu dee dana defarit la muy yàq moo ëpp ndax xam nga tey su fekkente ni ñun dañoo dëkk ci biir àdduna bi euh, wala boobu naa ko bàyyi ba ci deuxième point bi sax ndax dafa laalaale ak ak kii ma ñëw ci défi social yi défi social Euh, ku ne xam na ni yoon wi tey ay millions lañu mbooloo mi ay millions lañu. waaye boo duggee Touba fi mu nekk nii nga xam ni fii la sëñ bi nekk njabootam gépp nekk fi euh, da nga gis loo xam ni daf lay faral di frappé benn muy euh, disparité bi nga xam ni dafa am ci diggante ñenn ñi mel ni nekk nañ à l'aise ak à l'abri waaye am fi ñoo xam ne si nekk nañ ci ay coono yu méttee métti te pourtant loolu organisation rek la laaj pour régler ko waaye man jàpp naa ni. tuubaa gi kenn waru fee yewwoo ba noppi di di di sonn yenn coono yi man man man jàpp naa lool te lii ma wax ni euh, wax dëgg yàlla dëppoo naa ci ak xalaat ci sëñ Muntaxa dégg nañ ko mu wax ci lu mel noonu euh, am nañu ko seeti woon di ko wax ni ko tuubaa gi yellul sax kenn di fi dëkk di fay courant di fay nangam di euh, lépp dafa war a jàpp ni da koo dëggal kon disparité boobu nga xam ne am na soo génnee mën ngaa dem ci yenn barab yoo xam ne danga gis ni ñii du ñu toog ba seeni xel daj ci lekk ak naan sax ñu am ci jafe-jafe waaye mën nga fee dem ci ay barab yoo xam ni danga gis ni ñooña seen problème la waaye ku ci wopp sax fi mu nekk nii foo war a mën a dem faju ji fi mu nekk nii mën nga ci am jafe-jafe ak di ci ay xalaat te mboole seen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk njabootuk Sëñ Tuubaa te lii il suffit juste volonté bi am ak ñu organise ko lu mën a nekk la ndax li fi nekk ci potentialité ci yoon wi xajul ci loolu tegtal bi ma ciy joxe bu tuuti bu gàtt la xëñ na defuma promotion wu ñooña waaye am na ñoo xam ne ñu ak ñoom ñoo bokk dëkk ci biir réew mi te ñoom bariwuñ ci réew mi bariwuñ fi waaye tey léeg lekk bu nit masaana dem toog ba yàgg ah ñu ne ñun de dañoo far gone goo xam ne ndeyam ak baayam gisuñu leen dañ koo sànni te mi ngi dundandi am na ñoo xam ne la sam xel di njëkk a dem ci yóbbul leen ko te pourtant ñooñu waruñu koo daq mën nañ ko ñoo leen ko dàq sax waaye war rees na ko mën a organiser te loolu boo demee ci pouponnière yi da nga gis ni léeg lekk nga fekk fa loo xam ne wala nga dégg fa aw tur wala aw sant woo xam ne dafa lay jaaxal te ki la jiitu ci gone gi yar ko ba mu am yenn at yi fukki at ak juróom kooku mën naa bàyyi ci moom jeexit yu baree baree baree bare te gis nga kon enjeu bi ak euh, taxawaay bi nga xam ne war na ci am te loolu juste volonté ak organisation rek la beneen bi ci des mooy ni Euh, dafa am benn sëriñ daara bu ma nettali mi ngi fii ci Touba gi amaana xëy na mën naa dégg sama kàddu nee na jamono yi nekkee njaareem di jàng yàlla dogal muy muy raam xam naa waxtu yu mu daan dem euh, doon waxtu tàng léeg-léeg ci wuti xam-xam euh, fu nekk nee na dem na fa ngir mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yi jàppale ko waaye ñii ay cent francs ñii fukki dërëm ñii nangam lañ koy jox ba mujj na nee na amul lu puus puus bi mu wut. ba nee bis xelam daj mu dem ci labbe ba fa nekk bi mu demee ne ko kat man puus-puus laa bëgg ndax damay jàng euh, xam-xam te awma ay tànk yu ma doxe nee na labbe bi daal di bind aw kayit jox ko ni ko demal fee ñu jox la puus-puus ni ko waaye bu ñu la joxee puus-puus yi na nga del ci man nee bi mu demee ñu jox ko puus-puus bi mu del si nee bi mu del see mu ni ko dama laa bëgg a leeral lii ñun ñi nga xam ne ñoo bokk kër gii di fi nekk sunu alal ji nii euh, dajale weer wu nekk ci ci ci laa ko jënd ci laa la ko joxe kon xam nga ni <laughs> ñu nit war nañ koo man kon loolu lu ñu man la euh, te loolu social la dafa bokk ci dafa bokk ci yëf yi euh, taxawu saw ñooñ taxawu ñi nga xam ni yaa ngi ñoom yenn bokk pas-pas yéen a bokk lépp lu ne sëriñ bi jaral leen ko am nañu possibilité yi lu lu mën a nekk la loolu defee ngi ci te it gis nan ay sew-sew yu ci nekk. ndax gis nañ ni bari na ñoo xam ni ñoo ngi leen di këf ak ñuy rocciku te ñu bari ci ñoom léeg-léeg ñàkkul ni dañuy évoquer xëy na ay jafe-jafe yoo xam ni dañ koy am ñi leen di faral di taxawu rek la ñuy faral di euh, léeg-léeg di bàyyi xel ba ñu am aw yoon ci ñoom kon nag yaakaar naa loolu tamit euh, défi la boo xam ni mën nañ ko war nañ ko bàyyi xel euh, beneen bi ci des yi tamit muy défi communicationnel yoon wi. Euh, dafa mel ni fim ne ku ne sañ naa jóg wax ci te loolu dafay indi dafay indi erreur yu garaaw ku xam dana wax waaye ku xamul tamit dana wax ki xam bu waxee des cee jariñu waaye ñi xamul bu ñu waxee wa illaa ki xam te di sédd intérêt yi boppam lu mu def ci poosam kooka mën naa bañ a jiital intérêt yi yoon wi ak li sëñ bi digle waaye intérêt boppam lay jiite te loolu dañ ci gis waxtu wu ci nekk ay jafe-jafe yu baree baree bare yu baree baree bare euh, communication fii mu toll nga xam ni ère bi ñu nekk nii sax dañ ko tuddee une ère communicationnelle nga xam ni nit ñi amul euh, loo xam ni euh, du du la gën wala sax du lu baax dañuy insister ci communication te organiser ko ngir mën a jaay seen produit ak yi nga xam ne moom lañ yor pour nit ñi mën ko accepter rawatina koo xam ni euh, sëñ Tuubaa dama koy wax toujours ni tey jii foo mën a dem buñ demoon ba Chine wala ñu dem Adélaïde fële ci Australie wala ñu dem Brésil mbaa nga dem kanada wala États-Unis wala nga dem Europe wala fu la neex ci Afrique maanaam mën nañoo seet juróomi tomb juróomi ponk yi nga xam ni képp ku ni natt ci lañ lay natt ba ñu tàmbalee bind laa wax ba léegi moins cinq mille cinq cents ans ba ci deux mille vingt muy sept mille cinq cent vingt ans maanaam doo gis ku mel ni sëñ Touba ci jamono ci juróomi critères yi nga xam ne dañuy seet contexte bi ki ñuy bëgg a seet ban contexte la nekkoon dañ koy xayma saytu ko nit ñi lan moo doon seen i xalaat seen i ngëm-ngëm fan lañ orienté woon jëm et cetera jàngat contexte bi suñ jàngatee contexte ba noppi teg ci lan teg ci jëmmi ki ñuy bëgg a jàngat mooy kan lan moo doon ambition lan la bëggoon lan la bëggoon a réaliser lan la bëggoon a jot bu ñu noppee ci loolu ñu seet yan jumtukaay la yoroon ci bi muy jëm ci ambition boobu lan la yoroon ci jumtukaay bu ñu noppee ci loolu ñu seet ñan ñoo ko doon jéem a gàllankoor maanaam ñan ñoo nekkoon dans l'adversité yan jumtukaay lañ yoroon ñoom tamit lan moo taxoon ñu bëggoon ko empêcher jan doole lañ yoroon ñu natt lool suñu paree ñu bàyyi ñu xool nag lan la fi bàyyi en terme de résultat dama la loolu soo tàmbalee Euh, jam Babylone ba ba ngay agsi ci jamono nii doo gis ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba te juróomi critère la yoo xam ne si c'est universellement admis ñëpp dañ ciy natt mën nañ cee natt kenn ku nekk waaye gis nañ ni ci wàll communication Sëñ Tuubaa bi mu fi jógee léegi 1927 1927 euh, xam naa li may bëgg a wax euh, dégloo ko xel xel bu baax la la laaj foo dem ci biir réew mi ñoo ci àdduna bi ñoo ngi fay am ay kër Sëñ Tuubaa loolu lu lu am solo la waaye ni dëgg-dëgg yoon wi waroon a yokkoo ni yoon wi waroon a màggee màggewul noonu ni yoon wi waroon a yokkoo yokkewul noonu ndax communication bu baaxul communication bu baaxul ndax xam nga euh, dafa am lu ñuy faral ñun dañuy nekk souvent ci extase ci ci extase li euh, li ñuy wax ni sëñ Basiru daan na ko wax Euh, nii man du ma dénk sama dara ku ku ku kuy daanu ñun toujours dañoo nekk ci extase boo xam ne daanaka duñ ci jóg mukk toujours ñoo ngi ciy jël ñoo ngi ciy jël mais kii daanu pour nga jox ko dara mu téye ko du yomb ndax bu nee xalang rek ànd ak la nga ko joxoon daan daan ak moom te fi mu ne wax dëgg war nañoo nag jël beneen posture par rapport ak sëñ bi loolu dana am lu ma ci dikkaat léegi sax ci véritablement message bi nga xam ne moom la fi bàyyi ambition bi nga xam ne bëggoon na ko pour toute l'humanité d'abord rek. bëggal ko jullit yi bëggal ko ak njabootam loolu yaakaar naa ni ku ci communiquer doo ci am jafe-jafe euh, te bu ñu rappeler am na initiative bu ci Cheikh Abdoulaye jëmm ji tëdd fii ku jàmbaare la euh, am na lu mu ci doon dox waaye loolu lu matoon pérenniser la maanaam lu mat a yaatal la bu ñu rappeler woo ci ak nekkam sàkk na fi ay commission nga xam alhamdulilah kon ñoo ngi woon ci euh, defi communication nel yi euh, ñu ma doon wax sànq ni euh, sëñ Abdou amoon na ay commission yu mu sàkkoon yabal leen un partout ci biir àdduna bi muy lu am solo Europe bu ñu fàtte ni demoon na ñoom UNESCO France yabal na leen fii ci asi ci naar yi nga xam ni boo xoolee ni mu composé woon ñi doon dem ci ngay gis solos ak yëg-yëg bi nga xam ni am na ko ak am solo li li ñuy wax ni nga xam ni délégation boo ku mel ni sëñ Sàmbay ci la bokkoon sëñ Moussa Saliou bi ñuy dem Asie sëñ Muntaxa mi bokkoon na ci euh, ñoom Cheikh lay Dieye nga xam ni te kenn ku ci nekk sëñ Cheikh njool bu sëñ Moussa Bachir nga xam ni ku ci nekk daf lay assigné ni la boo demee fànn sàngam yow yaa koy yor sëñ Moustapha Saliou bu ngeen demee bu ngeen wax ci arab na sëñ Moustapha Saliou wax bu ñu wax ci français na sëñ Cheikh Ndiol wax bu ñu wax ci tasawuf na sëñ Sàmbay wax bu ñuy wax ci sëñ Touba na sëñ Moustapha Lo wax waaye bu ñuy wax nag euh, lu jëm ci moom xilaafa gi ak yu tolluwaayam sëñ Modou Mamoun ña ngi naa wax nga xam ne ku ci nekk dafa naan la na nga tàmbalee fii yem fii te yebal na leen ñu wër dem ci àdduna bi dem wër leeral te loolu giseen nañ ci ay kilifa yu bari yoo xam ne tàbbee nañ ci ci yoonu murit waaye malheureusement amul suivi aussi amul suivi donc gis nga ay dañoo bari jafe-jafe ci loolu dañu am ay jafe-jafe ndax euh, xam naa bëgg ñu bëgg sëñ Touba moo tax rek ba euh, daanaka euh, am na lu bari mënatuñ koo xool waaye jafeñ-jafeñ jafeñ-jafeñ la am ndax am na ci kilifa goo xam ni gouverneur la woon ci États-Unis googu moom ci loolu la jóge woon tabbi ci tabbi ci yoon wi ndax ñi muy waxal xam na ni ñii li ñuy wax xam nañ ko te it lu mu ci soxla laaj it danañ ko jox ay tegtal ci lii nii la demee lii nii la demee lii lañ fi bàyyi donc muy lu am solo te ñoom crise boobu dañ ko am muy crise métaphysique dañuy dem a dem a dem ba ñàkkuñu dara ci am ami àdduna yi waaye dañu xam fu jëm fi mu nekk nii donc loolu muy lu am am solo te ginnaaw bi tamit gis ngeen ay liggéey yu am solo ci communication boobu ak suivi bi ci waram ku mel ni euh, almujahidul akbar sëñ Murtada def na ko tabbal mbooloo yu baree baree bari ci biir yoon wi waaye bari na ci ñoo xam ne tey boo ko xoolee euh, fi mu nekk nii ñoo nga feneen ñenn ñi dellu nañu ci seen i kii ñenn ñi ñenn te loolu yi tamit boo xoolee def rapprochement bi ak ba ci gànnaar gi da gis ni ko sëñ Touba toje woon it ba tey gis nga xëy na na mu waroon a évoluer évoluer wuñ te lépp ñàkk communication bu baax ndax communication mooy base lépp ñàkk communication bu baax ak suivi ci yenn activités yi nga xam ne ñoo ngi koy. ñoo ngi koy teg beneen bis ci des mooy sëriñ bi dañ ko wolofaliser wolofaliser ko ba finalement dafa mel ni pour wolof yi kese la te adduna bi waxuma wolof yi waaye ñun français yi nga xam ni ñoo notoon réew mi fii ba Niger rek presque 400 millions de locuteurs lañ ci adduna bi nga xam ni lépp lay wax ci français peut-être 400 millions ñoo lay dégg xëj na xëj na waaye kon suñuy wax lu toll ni sëñ Touba war nañ di diversifier aussi véritablement Euh, euh, làkk yi nga xam ne moom lañ koy moom lañ koy waxee waaye da ngay gis mën nañoo jóge fii dem ba euh, par exemple Côte d'Ivoire di wax ak ñoom bëgg wax ak nit ñi ci wolof toog ci daayira ivoiriens yi ñëw nga bëgg wax ñoom ci wolof mais loolu sotti loolu mooy yow li ñuy wax bokkoo ci parce que déggul wolof mais da nga ko koy wax ci làkk woo xam ne dégg na ko beneen bi des aussi boo demoon États-Unis wala nga dem feneen le plus souvent yooyu dañ koy faral def xëy na ay dab dabaatal mi ngi ci am waaye yooyu it suñ ko corrigé woon da nga gis ni àdduna si nit ñi lu baax lañ bëgg seen bopp lañ bëgg te njariñ a ngi ci sëñ Tuubaa loo xam si njariñ loolu ñëpp euh, ñëpp xaj nañ ci euh, su ko defee am na yeneen i yeneen i euh, défi yoo xam ni en interne la te it lu mel ni su ma duggee léeg-léeg Tuubaa nii li lay njëkk di frappé léeg wala bokk na ci yi lay njëkk di frappé mooy tout tànk yi nga xam ni danga leen gis ñu yor ay saret te mu leer la ni ñu bari ci ñoom ñii waxtu yi mi ngi leen waroon a fekk ñu nekk ca daara ji jàngi ndax nekkuñu ci âge boo xam ne dañoo war a euh, liggéey léeg-léeg boo jëflanteeg ñoom sax danga gis ci ni ñuy réagir ci ngay xam ni ñii amul dara lu nekk ci ñoom wala li nekk ci ñoom bareegul kon nag ñooñu nañu may ab diir fii ak ñaar fukki at ba ñu màgg ba sampi kër dafay imploser suñu kaw lay lay dalaat suñu kaw lay dalaat ak xoolal sëriñ bi ni mu tollu ci xam-xam li mu liggéey lépp it benn bi benn euh, xam-xam doon doon benn erkaan bi ak ak ak ak ragal yàlla tey ay ndaw yu baree bari nga gis leen mu leer leen nit ñi amul benn préparation boo xam ne nekk na ci ñëw euh, ñoo ngi ci wut ab dërëm ak wut àdduna yor ay sareeti mbaam donc euh, fii ak ci kanam loolu ñaar fukki at xëy na fanweer. bu ñu demee ba samp kër mën naa indi jafeñ-jafeñ fi mu ne ci dëkk bi ak ak ak ak dëkk bi itam loolu it xëy na bokk na ci defi interne yi yeneen yi des euh, am na défi yoo xam ni <coughs> dafay dem a dem ba fi ne sax jëm ci suñu kilifa yi man muy defi euh, sécuritaire ak wàllu protocole euh, muy yu jafe jafe jafe jafe jafe léeg-léeg da ngay jóg ñëw dem ci kilifa wala nga bëgg dem ci kilifa gi waaye da ngay gis nit ñi ni ñuy doxalee ak comportement yi ci ngay xam ne lii mat naa seetluwaat bu baax a baax ñun sëñ Muntaxa mi dafa rëy ci ñun maanaam am na noo xam ni war nañ koy jël ci ay mesures euh, ba du ku ni ñokket rek daal di àgg ci moom ak euh, mën a mën mën a wéet ak moom wala nga gisee ak moom warul di demee noonu par exemple damay jël benn exemple tey su fekkonte ni man dama soxla le président de la république te sëñ Muntaxa ëpp ko responsabilité téeméer ji ndax euh, président Sénégal gii la ñu fi ne sëñ Muntaxa foo mën a dem ci àdduna bi am na ñu mu fa yilif kon bokkuñu sax ay ay ay dimension ci wàllu spiritualité nag waxaale wu ko ndax dafa am ci beneen sphère bu mu nekk moom waaye su ma nattee nii rek ci wàllu àdduna responsabilité rek tolloo ko léegi man su ma soxloon président de la république damay bind bataaxal présenté wu ni man may diw sàngam nangam ak nangam laa ko soxla su ko defee ay service am gëstu ko xool xam d'abord liñ may li ma koy doy lan la ah xam man su laajee ñu gëstu ci man maay kan ñu gëstu ci soog maa fixé rendez-vous ni ma ñëwal bis sàngam waxtu sàngam boo ñëwee ñu introduire la nga xam ni li nga war a wax ak moom xam nañ ko ba noppi préparé nañ tontu baag la ca war a tege yépp mu daal di mu daal di mais loolu fii la war a fii la war a gën a yelle waaye da ngay gis ku jékki-jékki rek ñëw ñu ni xës daal di euh, agsi ci agsi ci sëñ bi ba yàggul dara am na kilifa goo xam ni dañu toog nii di waxtaan ñu jékki-jékki rek am ku ñëw nuyoog moom. ni ko man maa ngi euh, euh, jóge nangam ci euh, yenn ci bànqaas yu yor wàllu sécurité bi ci réew bi mais man damaa damaa tiit te accès gi wurlu woon a demee noonu maanaam avant muy accès yi waroon nañoo xam ki moom mooy kan léegi imaginel bu fekkonte ni leneen lañ ko chargé woon mu koy def imaginel loolu kon loolu protocole yi dañ ko war di seetluwaat fi mu nekk nii ni muy doxee Euh, te loolu mooy dox ci àdduna bi yépp foo man di dem noonu la war di demee kilifa dañ ko war di sakkanal dañ ko war di aar ah, loolu dafa yaakaar naa ni lu ci lu ci lu ci am solo la aussi euh, su ko defee yi tamit euh, mbokki taalibe yi ñu vraiment jàppale sëñ bi te jéem ko noppal ndax boo duggee ci réseaux sociaux yi dafay mel ni ñun ñoo moom réew mi ñoo moom àdduna si lu ne danañ ci dugg lu ne danañ ko wax danañ wax lu waxu danañ wax lu wax lu waxuwul te ku yàlla dimbalee nga am kilifa gu toll ni sëñ Touba ku yàlla defal tawféex tey ji sa jëwriñ sëñ Muntaxa Mbàkke mi nekk sa kanam wax dëgg yàlla am na loolu waru cee waru cee dugg ndax moom ku ne xam na ko ci mbooleem kum fi ma sa nekkal ci kilifaam sëriñ bi moom bàyyee woon na la boppam sëñ Muntaxa te taxawu na la kem kàttanam ba nga xam ni kii day ab sang rek la la jàppe donte mag nga wala ngay bàyyi ci moom kon tey bu ko borom bi tegee ci suñu kanam nun ñii mboole sunu ñoo war a yeesalaat sunuy laxasaay te jàppale ko ci lool te wàññi wax ji ak wax loo xam ne si xamuñu ko ak wax ci loo xam ne suñu yoon nekku ci ak wax loo xam ne surtout it du suñu responsabilité te léegi mën critique yi dafa bari loolu yoon wi daa mel ni daa am lu bees lu ci lu ci rax koo wax fi mu nekk nii mun la expliquer seen cartésianisme boobu ñu bëgg cee dugal te loolu demeewul noonu lii mbirum pas la mbirum pas-pas la gëm te ginnaaw gëm gi moo am solo nag yàlla dimbalee nañu la ca topp la ci ëppaat solo mooy am kilifa gu mat kilifa te ñun am nañ ko kon nag nañu euh, bàyyi xel loolu te jéem koo jàppale ci joxoñ yi mu joxoñ ak naa yi nga xam ni am na ko loolu muy am solo beneen bi nga xam ne moom lay mujje ci euh, défi interne yi mooy défi institutionnel euh, gis nga boo xoolee état ak lépp loo xam ni dina jëm fu sori dafay dañuy fexe ba institutionnaliser ko institutionnalisé googu nag moo lay mën a may non seulement la ñu prioriser li ñu war a def xam ni kat ñun li ñu war a def lépp globalement lii ak lii ak lii ak ak lii la su ko defee lii moom mën naa nekk tey lii suba am na ci loo xam ne faaw mu xaar fukkeet am na loo xam ne nga xam ne loolu kuy mën di ñëw kenn du ko soppi dañ koy institutionnaliser waaye kenn du ñëw tey jii lii doon sa priorité keneen lii doonoon priorité am keneen lii doonoon priorité nga xam ni par rapport ak bëgguk Sëñ Tuubaa ci lañ koy tracé loolu ñu ko ci ñu ko ci dox tey jii nag nii sëñ Muntaxa joxañ ci effectivement xam-xam ndax demoon nañu ba ñun ñii sax amoon ci jafe-jafe boo waxee ñun la sëñ bi nekkul ci ay téere man la sëñ bi moom bu newul ci ay téere da nga naan nekkul ci ay téere kese ndax waxin wi am na ci solo nekkul ci ay téere kese waaye kon li mu bind ak li mu fi bàyyi ak production lii fi nekk yëpp lan mooy doon njariñ la kon wala boog sëñ bi daa amoon jot goo xam ne si day def lu amul njariñ li mu bind lekk production euh, scientifique littéraire li mu bind àdduna amul ku ma bind lu toll noonu ba noppi nga ni bind mi amul solo ah kañ am na solo am na solo bu baax a baax ba tax na joxañ bi sëñ Muntaxa joxoñ ndax xam na ni lii rek la yëf yi yëpp xam-xam la xam nga tey jii su sëñ xat fakkan nii jógoon dem taal otom départ bu dawee tuuti dégg lu yëngu ci oto bi mais mécanicien lay woo. donc loolu nag ni ñu ko nangoo ci sa daamar jooju bu fekkente ni am na jafe-jafe nga yóbbu ko ci mécanicien bi su fekkente ni tey da ngaa xëy da ngay yëkkati dara ci euh, xaalis teg ci sa loxol soxna mu dem ca jaba toppatoo fa lu ngeen xewloo ñëw togg indi ko ci kër gi kon asbaab yooyu nga xam ni lenn lu ci nekk loo ciy wut danga naan nañ ko jaare nii defe ko nii loo it noonu la yelle ci leneen lu ñuy def lu mu mën a doon muy gis-gis boobu xalaat ji xam-xam bi ak dogu gi ba ci jumaa ji bu taxawee donte sëriñ bi waxoon na ko lu yàgg waaye bi muy noppi moom ci zaahir fekku fi sëriñ bi kon loolu it dafa mënta ñàkk ci institutionnaliser ko mbir yi nga xam ni dafay am continuité daf ci daf ci am solo bu dul bu dul loolu da nga gis ni dana bari loo léeg-léeg lu waroon a gaaw mën naa mën naa bañ a gaaw surtout que it ko ci liggéey doomu aadama dafa am nu ko borom bi bindee. Euh, mooy doomu aadama euh, dafa am nu ko yàlla binde ci néew doole yu yu baree bari ñëpp ñëpp xam nañ ko loolu nag dafay sabab ci yenn ci liggéey yi euh, am na ku ma dégg mu def ci waxtaan wu am solo wane ni choix wu nit ñi nañ koy seet waaye gis nga choix nit bala ñoo tànn ab liggéey sax di ko dénk nit dafa am lu ko war a jiitu ba pare dañuy war a seet d'abord li ñu war a def lan la li ñu war a def lan la suñu ko seetee ba noppi euh, après après vision bi bien sûr suñu seetee li ñu war a def ñu seet ni ci defeen wi nan ak nan moo mën a nekk nii mën naa nekk nii mën naa nekk nii mën naa nekk option A B C option bu ci nekk ñu xool contrainte yi ci am nga xam ne loolu xam-xam moo koy def bala ngaa jóg da nga xam d'abord li ngay def lu ci nekk ñu xool contrainte yi ci mën a maanaam jafe-jafe yi ci mën a am ci A bi ban jafe-jafe moo ci am ak ban ak ban B bi. ban jafe-jafe moo ci am ban jafe-jafe ban jafe-jafe see bi nga xool ko soo paree ba noppi nga def nag lu ci nekk it ci jafe-jafe yi nga wutal ko action corrective maanaam lii su ma gaaree nii laa koy saafara lii su ma gaaree nii laa koy saafara loolu la ñuy wax planification nga xam ni yow bala ngaa jóg lenn lu ci nekk da nga xam ni mu war a demee nees ko war a defee ba pare léegi nag ci ban temps lañ ko war a def lii yan moyen la ñu soxla à partir de là nga soog a war a xam ban profil kan ñan ñoo war a def lii. waaye wareesul ñu jóg nii rek daan niil liggéey bi xaaral ma daal la koy dénk nii soo ko defee it da ci gis ay jafe-jafe yoo xam ni nam waroon a gaawe du du du gaawe noonu loolu xëñ na moom lay dolliwaat ci défi interne yi rek su ko defee ma <clears throat> ñëw ci lu gaaw defi externe yi mel na ni waxtu wi euh, cate na hmm. euh, défi externe yi moom euh, suñuy xool ni tey ñun dañoo nekk ci réew mu ñuy wax Sénégal te Sénégal ñu wax ni république la république boobu mooy lan mooy nit ñi fi dëkk ñëpp li nu maase bokk moom lañu nos taxawal ak benn banqaas boo xam ne moom la ñuy wax état muy saytu lool su ko defee état bi moom toujours dafay nekk dans la durée léeg-léeg nag mën naa ñëw gouvernement ñëw fi nii nekk nii ñu soppi ko ñeneen ñëw incarné ko ñu soppi ko mais état bi moom dafay nekk dans la dans loolu muy euh, dellu ci institution yi ma doon wax sànq ni da nga xam ne lu dëgër lay doon saytu gi duñ ko bàyyi ci nit kese waaye dañ koy bàyyi ci lu ñu nos loo xam ni ñu bari mën nañ koy saytoo ndoo ngir muy man di man man di dem waaye ñu gis ni république boobu dafay mel ni li Serigne Touba moom bëggoon te gëm ko mu jaral ko wax ni euh, shahidtu anna allaha rabbul xalq wa anna ahmada rasulul xaq république boobu mu reconnaître lool muy muy muy muy jafe-jafe nga xam ni tey sëriñ bi mu fi nekkee muy kenn ak bi mu demee ba mbooloo mi ma téeméeri nit ak tey ñu doon ay millions yi nit da nga gis ni ak soppiku am na fi millions yi nit yooyu nag mënuñoo ñàkk par exemple ci yoon woo xam ne des ci attewu par exemple ci wàllu législation rek te gis nga ni législation boobu actuellement dañ koo delloo ci lan ci ñiy politique lañ ko bàyyee ñuy saytul nit ñépp yoon yi ñu war a jaar lañ war a war a àtte lan lañ leen war a defal ci seenu dund lan moo ci war a jiitu lan moo ci war a des ci des ci ginnaaw loolu république bi moom moo koy moo koy saytu kon nag foofu yi tamit da nga gis ni am na loo xam ni euh, war nañu ñun ñii ci d'abord nekk ci biir loolu ñépp commencé bokk am ñu ñu ko séqal ñoo xam ni kenn ku ci nekk am na foo nekk te la nga gëm yaa nga ca ñu maase bokk loolu lépp ci jëflante waaye ba it du ñu léser aussi ñun suñu pas-pas ak suñu suñu suñu suñu ngëm-ngëm loolu lu am am solo la su ko defee euh, beneen bi ci des muy euh, dimension boo xam ni supra la muy adduna bi adduna bi jëm ci wàllu globalisation nga xam ni ñoo ngi jëm ci ay phénomènes yoo xam ni euh, yu xaw a doy la te bokk na ci suma junjee rek ni euh, danañ dem tuuti ci kanam nit ñi sax boo moytuwul euh, daanaka euh, danañ doon ñoo xam ni ñu manipulable la ñuy doon à distance manipulable nga xam ni nit ki mën nga ko waajal benn bouton ngay bës rek mu daal ni club nelaw waa mu yeewu mbaa nga programme ku mu toog weer du du du nelaw wala yu ni demee kon ci jamono ju mel noonu lañ jëm ndax dafa am ñu nekkal ci kaw suuf si mënees na leen tuddee xëj na xisbu seytaan wala te ñooñ ñooñu ñoom am nañ lu ñu gëm ni ñoom seen kilifa muy Lucifer euh, muy le porteur des lumières muy seytaane ñoom noonu lañ ko tuddee dañu wax ni kooku moom mooy ki nga xam ne moo bëgg nit ñi am aafiya moom moo bëgg nit ñi am jàmm kon nag ñoom ñi gëm loolu ñoom ñoo war a tracer àdduna ñoo ko war a doxal waaye ñoo war a bijji nit ñi it ci teg leen ci aw yoon léegi nag ginnaaw ñu mel noonu lañ dëkkal te ñun ñu gëm li ñu gëm xam ni yàlla kenn kese la xam ni moo yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñëpp te ñun ki ñu gëm te wóolu ko muy Cheikh Ahmad Bamba muy jëw jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun am na taxawaay bu ñu war ci lool te taxawaay ba weesuwul jëfandikoo ñaari yi sëñ Tuubaa wax kese muy xam-xam te nangoo sonn ci xam-xam parce que ñii nga gis fii ñu mën a dem toll ba ci domaine d'excellence yoo mën a jël ñu mën ci exceller dara mayu leen ko loolu xam-xam kese nangoo saytu xam-xam nangoo sonn ci xam-xam nangoo tamit gëstu gëstu ci xam-xam duñu ci sonn duñ ci tàyyi mais ñun loolu défi lañ ko war a def te gis ngeen sëñ Mountakha ni mu ko joxoñe ndax kuy wax université wax nga domaine de recherche université fu ñuy def recherche la fu ñuy gëstoo la kon nañu xam ni am na défi bu rëy bu nekk ci suñu kanam boo xam ni li koy mën a regle gap bi mooy xam-xam bu dee li ci des nag ñun am nañ garanti ba pare ndax yow mi gëm bokkoo ki gëmul ndax yàlla moom féete naa ñi gëm promettre na leen lu yu ndam promettre na leen yu baree bari te lam wax dan dana ko def ba tax na kon mooy ragal yàlla gi ci sëñ Tuubaa dugal nga xam ni loolu gage la mooy garanti borom bi mën ñoo man ñoo teg loxo waaye mënta ñàkk fi mu nekk nii ñu jëfandikoo xam-xam te fànni xam-xam yépp aussi ñu góorgóorlu ci xam nga tey suñu xoolee euh, par exemple lenn ci kilifa yi danga dégg ñun la kat euh, dem nañu ba soxla xëñ na ci wàllu wér-gu-yaram waaye dañ leen di déplacer jële leen Touba yóbbu leen feneen fi ne loolu lu ñu war a corriger la lu lu war a gaaw sax ci corriger ko la nga xam ne ñun li ñu soxla lépp waratuñoo génn Touba gii ci fànn yooyu muy ci santé muy ci yeneen domaines yi yëpp te yaakaar naa ni loolu loolu am na euh, beneen bi nga xam ne moo ci des nag euh, xëñ na foofu lay daaneele sax waaw beneen bi ci des muy euh, globalisation bi ma doon wax léegi Euh, xam nga dafa am ñoo xam ni dañu am nu ñu gisee àdduna d'ailleurs euh, crise Covid bii sax bokk na ci li ko waral ñoom dañoo gis ni euh, àdduna faaw ñu tënk ko mu doon benn benn réew kese benn réew moo xam ne benn armée bu unique lay doon am monnaie bu unique ay institution yi nga xam ne ñoom ñooy saytu lool yi tamit ñu doon ay institution unique lu mel ni OMS par exemple saytu wàllu wér yaram gi euh, lu mel ni par exemple Nations Unies doon benn organe boo xam ne si day légiférer ci yenn yi donc ñoom noonu lañ ko gisee bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale bi lañ tàmbalee teg teg teg institution yooyu am na yu ko jiitu woon tuuti nag euh, ci SDN mais yi ci ëpp ci deuxième guerre mondiale lañ ko teg léegi nag lii seen bëgg-bëgg mooy ginnaaw bëggatuñ nee nañ conflit nit ñi di am ay conflit seen diggante te it ñoo ngi sóor ay ñeneen ñu jóge feneen ñëw attaqué ñu kon il de que nit ñëpp jox seen kàddu kenn mu doon suñu kilifa ci kaw suuf si muy benn léegi loolu nag pour ñu layaloon ko njëkkoon nañoo tàmbali ci euh, euh, li ñuy wax le terrorisme bu ngeen seetloo l'an mille dafa tàmbali rek ñu daal di lancer terrorisme terrorisme ba noppi lëkkale ko ak l'islam terrorisme terrorisme mais terrorisme boobu dem nañ ci ba attaqué États-Unis te ñi ko def ñoom ñoo ñu génn génnuñu ci attaqué nañu Angleterre attaqué nañ Portugal attaqué nañu euh, daanaka fu nekk Allemagne bàyyiwuñu fenn France dem nañ attaqué Asie ba ci Afrique yi attaqué nañ ko Mali gii rek ay attentat am na fa am na Burkina am na Côte d'Ivoire am na feneen ak feneen ak feneen liñ ci jublu woon mooy nit ñi maasandoo tiit rët su ko defee ñu ne kenn ku ci nekk damaa bëgg a mucc ana lan moom mooy musal ñu ni léegi kat. lii noon bi lislaam la moom lañ bëggoon identifier ndax xam na ni moo leen mën a indil jafe-jafe su ko defee nag ñu daal gaaw problème boobu doon problème mu àdduna ñu amandoo benn autorité boo xam ne moo koy moo koy régler waaye malheureusement seen mébét moomu jàllul essayé nañ ko ci problème mu dépopulation mondiale bi ba tey jii jàllul dégg nga ñu bari ñu ni nit ñi nekkatuñ en sécurité ndax bu ñu nekkee huit milliards de personnes am na ay ressources yoo xam si dafay jeex kon nit ñi dañu nekk ci danger kon il faut ñu wàññi nit ñi. am na ñoo xam sax nee nañ nañ leen wàññi ba ci 500 millions de personnes léegi 7 milliards yi nangam yi fan la leen jëmee faagaagal leen mais projet boobu jàllul aussi ba tey ba ci réchauffement climatique bi jël nañ ko ni kat glaciers yi su fekkee fondre nañu mais loolu dana indi jafe-jafe kon ndox mooma bu màbbee du doon Canada rek lay yàq waaye dana yàq Sénégal yàq feneen ginnaaw problème bu global la nag il faut re solution globale la laaj kon loolu il faut ñu taxawal une institution globale ba tey xëy na lañ ca yaakaaroon amul ci lañ créé seen virus bi sànni ko yaakaaroon ni nit ñu bari dañuy dee ay millions su dee gi baree nit ñi ni fu lu ñuy mucce nu ñuy mucce jël nañ ay mesures yu drastique nit ñi nañu toog su ko defee lañ cay war a tegaat mooy indi ay vaccin ngir ku bëgg a mucc ku bu ñu vacciné wu it xam ngeen ni ñu baree bari ci la naroon a faatuwaat mais malheureusement toujours lii daaneel seen i seen i seen i yëf mooy seen programme dañ ci dul boole yàlla lu nekk la calculer nag bu ñu defee nii bu ñu defee nii lii ak nangam nangam waaye sóoraale wuñ ci yàlla première phase bi ñu njëkkoon a wax moom la yàlla eh, éliminé fi mu ne ca la yàlla àndul moo tax li ñu sóoraatoon lépp dara amu ci ay millions yi millions lañ yaakaaroon ñooy faatu rawatina nag ñun africains yi nga xam ni ñoom jàpp nañ ni àjjana Afrique la war a nekk le paradis terrestre Afrique lañ ko war a def il faut ñu jëlee yi donc maintenant pour mën a taxawal àjjana donc yéen a ngi fi dégg sax ay ville intelligente bon mais euh, duma mën a sori ci loolu ndax euh, waxtu wi xaw naa xaw naa xat tuuti euh, kon loolu moom mooy beneen défi bi nga xam ni si moom laa ci moom laa ci bëggoon a teg kon nga xam ni kon ñun dafa mel ni li ñu wër ci défi bari na waaye li nekk ci suñu biir ci ay défi tamit bari na te lenn lu ci nekkit jeexalu ba ko dafa am yu ma ci tudd rek. am na yoo xam ne si tamit euh, euh, tudduma ko kon nag lu mel ni su amee ñu ne ñun kan mooy suñu kilifa ñu ne xaadimu rasulillahi man yaakaar naa ne foofu yi tamit xëj na am na benn interpellation bu ci am walla défi boo xam ne murit bu ci nekk daf lay interpellé mooy xaadimu rasulillahi kon kii de moom moo nekk ci service su yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi mel ni par exemple le président de la république nekk ci ci service su askan bi le peuple sénégalais nga xam ne non seulement taxawaay bi da koy mate dayo bi da koy mate waaye tamit waxtu wu nekk bu xëyee ci luy mbiru askan wi ci moom lay toppatoo loolu nag li ma ciy daal di gisee kon ni ñun su fekkente ni ñoo ngi wax ni ñun de gëm nañ ni xaadim rasulillahi lañ topp war nañoo xam ne ñun murit yi suñu taxawaay fépp fub jullit nekk nekk njabootu yonent bi. ñun sunu xel sunu xalaat ak sunu yitte war na laa daj ci nan lañ la war a taxawoo ak nan lañ war a doon sa yitte waaye ñoo nekk ci posture ay concurrence ñoo nekk ñun ci posture boobu déedéet ndax li ñu wax bu fekkee gëm nañ ko xaadimu rasulillah yi loolu mooy la ki nekk ci service su ki ñu yàlla yónnee ci ñëpp kon dañuy gis ni kon ni liggéey sëñ Tuubaa ñun effectivement ñun sunu posture mi ngi war a nekk ci posture lu daj wër këpp àdduna waaye wërta nekk ci ay posture xiiroo ŋaayoo tontonte waa ji daa bañ sëñ Tuubaa nangam nangam déedéet <laughs> mën na koo bañ a bañ mën naa am da koo xamul mën naa amit ni la muy wax ci saw doxin la la sukkandiku ba tax wax ko loolu dafay dafay faral di am kon loolu dafay lu am solo ci xaadimu rasulillahi su fekkente ni jàngataat nañ ko xool ko war nañoo xam ni sax effectivement foofu rek défi bu rëy mi ngi ci ci ñu gëm nag ni su fekkee loolu dëgg la gëm nañ ko war ñoo xam ne ñun suñu taxawaay mi ngi war a nekk ci service u servir toute l'humanité particulièrement la umma islamique euh, wa agrina ya rabana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma donc loolu moo war a doon ñun suñ posture mais war a doon posture u xëccoog kii li mu wax sëñ beeg nangam ak nangam déedéet te ñu war a xool aussi ni nit ñi ñun ci ñun la ñuy xool ci ñun la ñuy xool ba xam ñun ñoo ngi véhiculer ñoo ngi dund ci suñu melokaan ci suñu doxin ci suñu waxin ndax dëppoo na ak fi mu nekk nii li sëriñ bi di di di di di di di di jàngale doon ci yar mag ñi loolu nag foog naa ni it lu am solo la ci murit bu nekk war nga xam ni ambassadeur nga fa nga nekk ci acte booy posé ci lépp looy wax mu leer la ni loolu mënees naa def relation bi yóbbu ko ci sëriñ Touba kon da nga gis ni kon am nga responsabilité bu lourde boo xam ne waxtu wu ne war nañ koy euh, bàyyi xel euh, fi may daaneel sama kàddu nag mooy jëmmi événement bii màggal gi euh, jullit yi ci àdduna bi est-ce que xam ngeen ni ñoo ngi toll ci un milliard sept cent millions jëm un milliard huit cent millions ce qui veut dire ni juróomi ñeenti nit ñoo gis ci àdduna bi kenn ki jullit la ñeenti nit ñoo jël le quart de la population mondiale e musulmane léegi nag puisque kenn koo jël ci ñeent ñuy dox ci kaw suuf ku nekk ñooñu ay jullit lañu te jullit yi tey amuñu kàddu amul benn jullit bu am kàddu ci àdduna bu mën a wax kàddoom kàddoom kàddoom saxal amul ci kaw suuf si est-ce que kon ñun ñun ñuy wax naan Xaadimu Rasuul est-ce que ñun comprendre nañ li ñuy wax ak mission bi ñuy xaar ak taxawaay bi ñuy xaar boo demoon Nations uni amul benn jullit bu fa am kàddu dañ la dul déglu sax. dañ naan la yow al toppe doo ngeen di te pourtant nous faisons le quart de la population mondiale adduna bi jullit yi rek lañ mën a sañ rey tuur seen deret te kenn du ko faj adduna yi jullit yi rek lañ sañ sañ xañ seen àq te kenn du leen ko fajal adduna bi jullit yi kese kese kese lañ sañ a génne mbaa ñu exil leen mbala ñu torturer leen wala ñu tëj leen te amul ku leen koy fajal ci kaw suuf si ñun est que kon ñun ñoo ngi <laughs> comprendre ñun li ñuy wax lan la. amul ci jullit yi te pourtant euh, bu dee suñu mbokk yi ñi tënku ci ni njabootu yoon ci Yàlla Iisaa la ñoom am nañ ko à travers la France ak l'Angleterre parce que l'Europe elle est chrétienne elle est de tradition chrétienne l'Europe c'est vrai que église nag bari nañ fa mais loolu la ci njàngaleem yoon ci Yàlla Iisaa la kii ñoom ñaar yooyu dañ ko revendiquer ak euh, fi mu nekk nii la euh, lekk romain l'empire romain ñaar yooyu mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen aada te pourtant ñoom ñoom am nañ droit de veto tey ñun julli ci ci adduna yépp suñu ni woon dañoo bëgg nangam France mën na ni loolu du am yëkkate droit de veto am empêché ko Angleterre mën na ni yëkkate droit de veto am ko amul jullit bu mën loolu tey su fekkente ni ñi tënku ci njàngaleem yoon ca la Moussa la à travers les États-Unis Israël am na ko États-Unis lu mu am bëggul ci àdduna bi danaan lii du fi am kenn du ko amal.

de l'époque muy la France coloniale yilif ay réew Afrique yilif ko asi yilif ko aussi Amérique France bu jàpp ni fii rek la yilifoon ay réew de France moomu la sëñ Touba dem ba noppi ni moom du ànd ak kenn ndax yàlla doy na ko te yàlla lay wétali ko kon kooku war nañu aw yoon kon su fekkente ni moom taxaw na taxawaay boobu ba dem delsiwaat mënaluñ ko dara mu bàyyi fi lim fi bàyyi yar mag ñi mu yar bàyyi fi njaboot gi mu fi bàyyi bàyyi ñu fi xasida yi bàyyi fi lu toll ni màggalu Touba gi nit ku ñuul doonoon koo xam ne ku ñu xeeb la. parce que bu ñu fàtte ni 1848 la ñu euh, abrogé euh, euh, l'abolition kii lan abolir esclavage en tout cas officiellement ak ñoom Victor Schœlcher mais bi loolu amee sëñ bi gane àdduna ginnaaw bi dox fi jéego yi nga xam ne dox na ko fii ba taxawal fii li mu fi taxawal yàlla may ko ci nit ku ñuul laa wax de àdduna bi la ko jiitu amul kenn ko nawloo nit ku ñuul amul du ci wenn waaso du ci wenn xeet du kenn naw la wuñ leen waaye sëñ Touba lañu ñu nongul tey mbooleem Sénégal gi waxaale wu ma leen ñi fi nekk di yëngu ci diine bi yépp danañu bàyyi seen yitte ñëw ci biir dëkk bi ci màggal gi lan moo leen fi tax ñëw mais ay lekk andiwu leen fi lekk ak naan andiwu leen fi ñëw di def si nu ñu koy wax tourisme religieux indiwu leen fi amuk jot aussi andiwu leen fi jàng si wuñ fi aussi diine parce que kenn ku ci nekk kàngam nga fa nga nekk dangay ngay jàngale diine wa seetlu na mbooloo moom yépp Sénégal mën a dajendoo ci benn barab te doo gisaat Sénégal fu mbooloo moom mën a daje dajewaat waaye mboolem continent yi fenn fu ci nekk ay kàngam danañ fa bàyyikoo doon ay keno ci diine ji ñëw ci dëkk bi fekk si nit ku ñuul kii nga xam ne moom la yàlla samp te fekk na bi muy sanc dëkk bi waxoon na ni wachelu temps maskana taalumi wa mawdi'al fikrati wa tafahum bi ñoom ñëpp ñu maase toog fii te du lekk ak naan wax naa ko du tourisme religieux ñëw ñu ngir jël si ay dars di jàng si diine fii mais ñooñu yàlla créer na kon occasion boo xam ne ñee doole jañ am ci lii la tàmbale woon ngir waxtaane mbirum diine ci Touba gi ngir waxtaane mbirum l'islam ci Touba à l'occasion du Magal de Touba nga xam ne Touba war nañu travailler à ce que mu doon la tribune de l'islam ba bu ñu non pas ñu ni sëñ bi moo def lii wala moo def lii déedéet parce que ñun convaincre yëf yi waaye dafa doon ak njabootam te lool la waxoon fa bashir zawil islami bi ajilan wa ko l'islam ko taxoon a jóg kon njabootuk l'islam yépp suñ ñëwee toogandoo ci dëkkam bii mu ñaanoon fi yàlla li mu ko fi ñaanoon war nañoo xam ni kon mbiri l'islam yépp war nañ koo waxtaane Touba léegi à l'occasion màggal ba nga xam ni discours bi buy génnaat jullit bi nekk Brésil danaan ah attention je vais écouter en fait le discours de Touba nga xam ne jullit ba nekk ca euh, Taipei dafay toog di xaar discours bi parce que xam na ni discours bi daf koy engagé parce que jullit yëpp lañu impliqué ci processus boobu loolu jàpp naa ni moom benn défi gënu koo mag ci défi yi nga xam ni mi ngi ñuy xaar ñun murit yi à ce que ñu génn ci euh, benn sectarisme bi te xam ni sëñ bi nekkul woon ci sectarisme sëñ bi ku yaatal la ku yaataloon li mu doon def la sëñ bi mboolem islam bi yépp la nongul kon nag ñun yaakaar naa ni posture boobu aussi war nañ ko am fexe aussi ba 18 safar mën a doon la tribune de l'islam ba nga xam ni jullit yépp dañ koy toog di xaar mbooleem lu interpellé ti la umma islamique processus bi ñu impliqué ci mbooleem kuy ay jullit di ko waxtaanee Touba déclaration yi ñu defee ko Touba su ko defee mu mën di delluwaat ci ñëpp ndax Touba ci lay occasion bi nga xam ne ñëpp danañ ci daje lu mel ni Màkka doon na ko man waaye aj Màkka gi xam nga ni d'abord ay farata nga fay joxe. farata yaa nga fay joxe tax na nit ñu bari taluñu ko beneen bi ci des si tamit mooy bari na ñuy dem màkk ñoo xam ni sama classe gi la seen diire sax dese na leen a leer man gis naa koo xam ni at mi muy wàcc ni day màkke ci la ñëw ni nan ko jàngal lixlaas man mu naan lixlaas lixlaas ñu ni ko déedéet da nga naan xulu huwa allahu ahad donc xam nga ni kooku mënta taxawu diine ji ci yenn fànn yi te pourtant ñiy daje Tuubaa ñëpp ay kàngam lañ ci barab yi ñu jóge kon yaakaar naa ne loolu suñu travailler à ce mel ni bañ a taxaw ni nit ñi kay ñu imposer leen sëñ Touba déedéet loolu du communication bu bu baax bi li ñu war a def te war koo def rek mooy nit ñi moom yàlla toj na seen i xol bañ nangu ba pare ba ñëw ci dëkk bi toog ngir yëkkati lu yëkkati kàddu yàlla yàlla dong kalimatullah hiya al ulya te li taxoon ñu sanc dëkk bi loolu la kon yaakaar naa ne sunu deyee wax dëgg yàlla euh, wajelu dabad maskana moo wa mawdihal sikrati wa mi kon ay mawdu yoo xam ne dafay engagé tout la umma islamique ak sax loo xam ne dafay engagé humanité ndax ci lañ nekk dañoo bokk ak ñoom àdduna bi di fa dëkkandoo yooyu war nañ koy waxtaanee fii ay résolution du génn waaye ñu bañ koo jàppe ni rek ñu naan daal ñun murit yi rek murit yi déedéet murit yi dañoo war a nekk ci service u ñëpp yaakaar naa wax naa bayit bi sànq sëñ bi ñaan na ko ni nag ma may may liggéeyal euh, ñi nga xam ni euh, ay ay euh, way way way jullit yi loolu lu am solo la loo xam ni bokk na ci défi yoo xam ni il faudrait que murit ci gën a yëkkati nag seen gis-gis ñu liggéey ci jàppale ci aussi suñu kilifa yi ngir mën cee dem kon xam naa euh, sëñ bi man daa mel ni daa mel ni xëy na tàmbaleegu ma sax waaye waxtu wi daa kii ndax ci benn xët wi rek laa yam xam naa waaye waxtu wi mi ngi dem kon su ko defee it des moom <coughs> euh, li sëñ Saliou daan wax rek. booy wax lu ñëpp xam moom mm, loo ca wax rek doy na euh, te xam na ni am nañ ay défis ñun en interne te defi yooyu nag il faudrait que ñu waxtaane ko il faudrait que ñu jàngat ko il faut ñu jéem cee wut ay ay ay saafara pour améliorer euh, mbir mi waaye xam na nit ni am nañ ay défis à l'externe yoo xam ni dañoo seq ak ñoom àdduna bi ñaari défis yi nag li muy exister existe défis internes yi ñoom ñoo gën a euh, nekk prioritaire ndax. Euh, dañoo gën a xarañ te it di refléter aussi image yoon wi doxin wi ak taalibe yi ak li ci aju lépp ba tax na loolu tamit euh, mat naa bàyyi xel kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ndokkeel di jégalu nag ci euh, kàddu yi xam naa ni lu ci jub moom yàlla la lu ci